géewul tv point com borom dege mbere borom dingiraay borom si rumaami Cerno Bachir li mu am mi ko amee ci barke Seydi di gàmmu sunu sang bi Serigne Moustapha Ngiran di ci ndokkel ñëpp parce que heure bii daaw yàlla ngi dogaloon ñu fekke ko ah, waxtaan fi waxtaan yu am solo def fi ñaan yu am solo yàlla nañ ko gën di muurloo xam naa bala ñuy tàmbali jotaay bi ñu ñaan sunu wayjur sëriñ Abib Sey ah mu joxe ñaan ñu ibbi jotaay bi di ko ñaan rek ci barke maamam di ñaan yàlla yàlla lépp yàlla yàlla barke lépp ci barke yent bi sallallahu alayhi wasallam bismillah yàlla yàlla barkeel mu melni kon comme nim ko junjee rek xaw na noo tardé bu baax ci walu waxtan bi muy symposium bi ñu tambal li waxtan bi te ñu alcorane di ñaan rek eh, sunu rak eh, Thierno muntaga Fall ñew nyu ñu alcorane bu tedd bi inshallah allah ñu ibé ko jotaay bi bismillah أعوذ billahi minash shaitanir rajim وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ۖ وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله العظيم يفي على دومنا ndax mbokk mi ñu doon jàngal alxuraan bu tedd bi wax dëgg yàlla woy bu ñu ko jëlee ci wàllu baatin dañ woy juróom la ñuy war waxtaane tey <coughs> mu mel ni kon mm, jotaay bi fas yéene nañ ko tàmbali di wax rekk ne dañ ko taamu daawu defoon nan ko ren ñu di ko tollanti a ah, lu jiitu jàmm gi ñu def benn symposium waxtane Borom, ñi nga xamne ne nan na ay keñolan yu am solo ci walu diine ji ci walu tariha bi tay ngiran, serigne mustapha ngiran ci yitte bi ak pas-pas bi ak taxaway bi a ñaanon ñu tànn sunu mam Cerno Omar foutu tal, ah muy wax dëgg yàlla koo xam ne diine ji yépp a koy tiitaroo ci àdduna bi rawatina nag tarixa cheikh di wax rek ne temps bi daf ñu njett lool waaye ay boroomu xam-xam yu am solo yu yàlla baaxal yu yàlla barkeel seen xam-xam moom lañ am chance tey dajale fii ci jataay bi di ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel boroom xam-xam yooyu nag li ñu ci am xëy na tuuti rekk lu ñu ciy metti mooy amuñu yaatuwaayu jox leen temps bu doy pour li nekk seen dënd dañu am yéene partage ko public bi mu mate pour ñu jàllale ko waaye nag li ñuy wax rekk euh, moom barkeelu rek am na bis yoo xam ne si barkeelu rek moo fa jekk xanaa di leen ñaan rek ñu barkeelu waaye fas leen ne yéene di leen wax ne <clears throat> waxtaan bi mi ngi jàll ci plateforme digital yépp loolu nag mooy ni ñun weetuñu te ñi niy seetaan di ñu déglu ci plateforme ci xarala yi daf ci am ñoo xam ne si xëy na dégguñu sax làkk wolof bi moo tax ren ah sëriñ Moustapha ci xalaat bu rafet bi ci yitte beeg pas-pas bi ñaanoon ñu yaatal ko bu nu waxtaanee ci wàllu wolof bi nu nàmp ñu yaatal waxtaan bi ci wàllu français moo tax ci jataay bi da gis ne dana am ñoo xam ne ci seen communication seen barkeelu ma tuddee ko noonu bu ma nee communication te mu gudd sen barkelu dañ koy def ci kàllaama kocc ñeneen inshallah incha ci Molière wala bok ci langu nasara lañ koy def waaye taamoo nan aussi buñ lañuy tambali wax deug yalla ñu jox ay mbokk yo xamne ñu am solo lañ ci bés bi ndax yalla ak yaakar ndax yalla ak pas-pas ndax euh, mbokk mi limay wax rek Seydi Moustapha daf ci am ay wolere yo xamne si xam na ne cofeel gi ñu am ci mom ak yene bi am ci mom tol na loo xam bu ñuy def lu melni xébu ci sen xalaat xébu ci sen participation ci biir bépp mu melni ni kon ci ñoo ñi danañ ci jox ñaar kenn ki di professeur Ousmane Kane mom mu jotali kàddu gi ci walu français nuyu nit ñi def discoursam ñëw xëy na ci li nga xam ne si moo nu fi dajale ci wàllu symposium bi joxe axe yi nga xam ne si moom la ñu war a waxtaanee keneen ki di soxna docteur awal li Fall moom it ci wàllu anglais xaw ma ndax communication yi daan am anglais waaye ci wàllu anglais na làkk bi ñuy wax anglais donc dana ci jàllale benn discours pour que li nga xam ne si moom la Ousmane kan professeur directeur jàllale ci wàllu nasaraan moom mu jàll ko ci wàllu anglais loolu la ñuy tàmbalee rek xëy na ñu jox leen kàddu gi ci kéemtalaayu ay simili bala ñuy dugg ci waxtaan bi salaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad xaatimi nabiina wa imaamil mursalin Mesdames, Messieurs, honorables invités. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je viens prendre la parole devant vous pour inaugurer ce symposium dédié à l'une des figures les plus illustres de notre histoire. Il se nomme Cher Omar Foutu, Tal Radiallahu Talano. Nous nous réunissons ici pour célébrer la vie et l'œuvre de l'homme dont l'impact transcende les générations et continue d'inspirer des milliers de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest et même au-delà. Cher Omar n'était pas seulement un chef religieux, mais il était un visionnaire, un érudit, un stratège militaire et un résistant farouche à l'oppression coloniale. Il est né en 1794 à Alouar dans le Fouta Toro. Il s'est rapidement distingué par son intelligence, sa piété et son dévouement inébranlable à l'islam. Son adhésion à l'ordre soufi de la Tijania a marqué le début d'une mission spirituelle et sociale qui allait transformer toute la sous-région. Sur le plan spirituel, justement, sur Omar a été guidante pour de nombreux croyants, en tant que leader de la Tijania, il a consacré toute sa vie à l'enseignement et à la progression des valeurs de l'islam. Il a voyagé à travers le monde, il a à travers les territoires comme la Guinée, le Mali et d'autres euh, pays, prêchant la paix et la justice. Ses enseignements ont non seulement renforcé la foi de ses disciples, mais ont également contribué à l'édification d'une société plus juste et équitable. Il a insisté sur l'importance de l'éducation spirituelle, de la pureté du cœur et de l'engagement personnel envers Dieu. Cher Omar nous a légué de nombreuses œuvres écrites, parmi lesquelles le célèbre Rimar, un ouvrage fondamental pour la compréhension de la Tidjania. Dans ce livre, il a exposé les principes et pratique de l'ordre, offrant ainsi des conseils précieux sur la manière de vivre une vie spirituelle et pieuse. Ces écrits continuent de guider des fidèles et de les inspirer au-delà des générations actuelles et futures. Honorer l'arrivée de nos chers, les petits-fils de Selina Lunba, à la tête de laquelle nous avons Serine Babakarba. Voilà, je vais faire quand même le <laughs> micro central. Voilà, Serine euh, Ahmad Ba, l'imam cher, euh, Pape Ahmed Sarngiran, Serine Ahmad Kabir, Serine Ahmed, Serine al Sek. Voilà, <laughs> je suis arrivé à le faire. Machallah. Mais par nécessité de défendre la dignité et l'autonomie de son peuple, ses campagnes militaires, bien que marquées par de nombreux défis, témoignent de son courage et de sa détermination. Il a su fédérer différentes communautés, transcendant les divisions ethniques et culturelles, pour former un front uni contre l'envahisseur. Son engagement dans la résistance a été une source d'inspiration et un symbole de lutte pour la liberté et l'indépendance de l'Afrique de l'Ouest. Chers invités, ce symposium est une occasion précieuse de revisiter et de réexaminer les multiples facettes de son héritage. À travers les différentes interventions prévues aujourd'hui, nous allons explorer son rôle central dans la Tijania, son modèle de leadership religieux et politique, sa résistance héroïque à la colonisation, ainsi que sa pensée profonde et visionnaire. Permettez-moi de remercier chaleureusement tous les éminents intervenants qui vont nous honorer aujourd'hui de leur présence, qui nous ont déjà honorés de leur présence, mais qui vont nous honorer de leur, euh, participation et de leur intervention. Je remercie également le professeur et collègue Alun Badaradiak pour avoir orchestré cette journée et l'infatigable Céline Mustafa Angiran qui a organisé et préside actuellement cet événement. En ces temps où notre monde est en quête de sens et de direction, les enseignements de Cheikh Omar résonnent avec une pertinence renouvelée. Ils nous rappellent l'importance de la foi, de la justice, de la résistance face à l'oppression et de la solidarité entre les peuples. Pour conclure ce discours, permettez-moi de vous offrir un humble hommage poétique dédié à la mémoire éternelle de Cheikh Omar cet homme dont la lumière continue d'illuminer nos cœurs et nos esprits. Dans les sables d'or du Fouta, une étoile est née. Omar Futu, lumière divine, guide vénéré. Par les chemins de la foi, il a tracé sa voie, enseignant la paix, la justice, la sagesse en éclat. Par les prières du jour et les méditations de la nuit, il éleva les âmes, apaisant chaque bruit. Son cœur battait au rythme des paroles saintes. Sa voix résonnait, douce et aimante, il porta le flambeau de la Tijania avec ardeur, éclairant les sentiers, dissipant toute noirceur. Ses écrits, tels des joyaux, brillent encore aujourd'hui, guidant les croyants, illuminant les nuits, mais face à l'oppresseur, il n'a point fléchi. Oumar, ou Cheikhou, comme on l'appelait affectueusement, le vaillant, résistant infini, pour l'honneur de son peuple, il prit les armes défendant la liberté avec courage et charme dans les vastes plaines du Sahel. Son nom résonne, symbole de foi, de force et de passion. Il nous a laissé un héritage immortel, un chemin de lumière, une voie vers le ciel. Ô Cheikh Omar, que ton esprit nous guide, que tes enseignements apaisent nos cœurs intrépides. Par ta vie et tes œuvres, nous trouvons la foi. En toi, nous voyons un modèle, un roi. Puissent tes lances spirituelles percer nos doutes, nous rappelant sans cesse la vertu de nos routes. Que ta mémoire vive en nous éternellement, comme un phare dans la nuit, brillant intensément. Chers invités, que nous puissions tous, en suivant ces traces, œuvrer pour un monde plus juste, plus spirituel et plus solidaire. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une journée riche en enseignements et en réflexions. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais donner la parole également à Dr Awali Fall qui va faire son discours en anglais. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is an honor and a privilege to address for the second edition the opening ceremony on the life and work of Sheikh Omar Futiyu. I'm going to make a brief introduction on El Hajj Omar, the conscience of African Sufism. In Arab culture, which is the vehicle of Islamic thought, it is said that the variety of a person's qualifiers provide information on the dimension of the latter. This is how it makes sense to apprehend the stature of the man we are given to speak about and who is undoubtedly one of the most illustrious sons that our country, Senegal, ever has. The eagle of Alwar, Saifuddin, the sword of religion. Kode Adama Aise, Sheikh Omar. Omar Al-Futiyu, Omar the Futanke. El Haj Omar non-exhaustive list. Why then speak of an eagle when referring to El Hajj Omar? Observing the noble bird, we realize that it reaches altitude unmatched by no other species. The parallelism is worth its weight in gold for the one whom some nickname, some nickname Black Prophet for having unleashed jihad in the West African space. By receiving the divine order to engage in a holy war, a vast project of reviving Islam was launched, and by managing after 40 battles to save the essential with the Sufi community, sufficiently prepared to be resilient in the face of the colonial design. He follows in the footsteps of Prophet Muhammad and supplants his peers on the path of propagation of Islam. Thus, the title of greatest propagator of Islam of the last 150 years was awarded by the Libyan Jamahiriya posthumously in 2010 is in no way usurped. The eagle also embodies the mystic of work by making it a point of honor to only eat the prey it has killed itself. El Haj Omar, through his stature as a military strategist, succeeded in founding an empire of 300,000 km square shared between Senegal, Guinea, and Mali. Political leader, having formed alliances and having also suffered betrayals, he achieved the feat of converting eight kings in seven different countries. Like a tutelary genius, his traces are marked in the collective consciousness with indelible ink. From Alwa to Dingirai, via Chenin, St. Louis, uh, Warefonde, Kaba Koto, Kazamas, Dengebere, Sheikh Omar remains a famous unknown, elevate, elevated in the rank of patriarch, of whom all converge on the degree of holiness also enveloping in a modest, in a modest mystery. Announcer of Sayyidina Ali Mamulai, according to the lion, master of El Hajj Maliksi, whose birth he also favored through a stay in Gaia, revealer of the extraordinary, exceptional destiny of Sheikh Ahmad Bamba, well before his birth, designator of Tafsir Mabbajahu for the perpetuation of his work while he left for Mali with Dingrai as his headquarters. It is rare to see in Senegal a religious home without connection with the son of Adam Aisse. This fact is quite revealing of its impact which go beyond Tijaniya to embrace Islam, in particular its Sufi stream. Moreover, his masterful work, Arima, The Spare, is considered more a treatise on Sufism than a book on Tijaniya. Here is what, Ad what Adriana Piga, an Africanist specializing in Sufism Islam, says, I quote, the work consists of a long dissertation on the relationship between disciple and spiritual guides, the role of sheikh, the differences between khalifa and muqaddam, the very concept of holiness, the meaning of spiritual retreat called halwa, the importance of prayer. It is a reality, it is in reality a true treatise on tasawwuf, Sufism, and in particular on Tijaniya brotherhood. So here are four lives in one life. That of a political leader at the head of a, of a state with a competent administration with proven example such as collection of customs and tax revenues at the borders and within. That of a war leader and military strategist whose feet of arm remain stubborn despite being great victims of the school of Jules Ferry. We are welcoming. sëtam mooy dugg waaw muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Tall bu Thierno Macky Tall allah kii ñuy waxtaane tey sëtam mooy dugg li naan ah dëgg yàlla ngir taaral jataay bi ngir barkeel ko yaakaar naa ñaan sunu way jur bi ñaan ak ci jàng ak discours yi wax yàlla wane ki Cheikh sunu Cheikh Omar So we were talking about the four lives in one life of uh, Sheikh Omar, and we were in the third life, which is a prolific writer with a bibliography dense in quantity and quality cited as a reference in the libraries of Al-Azhar, thought leader of Islamic world. The fourth is the caliph among the caliph of the Tijaniya, according to the word of Sidi Muhammad al-Hali, I quote, the Tijaniya has several caliphs, but you, Umar, you are a caliph among, among the caliphs. Hand of God. It is also worth remembering that on the road, of Mecca, on the road to Mecca, at the height to, of Futajalon, El Hajj Umar has received his initiation into Tijaniya from the hands of Abdul Karim Jallo, himself a disciple, a disciple and muqaddam of Sheikh Maulud Far. Returning from Makkah after a mystical education of three years, he was crowned Khalif of Tijan, Khalif Tijan of Black Africa which make El Haj Abdullah Niass Al Kabir say Cheikhu Omar my Sheikh Tijaanu nit ñu In Tijania, it is extremely rare to see a disciple becoming Khalif without necessarily passing through the Muhaddam stage. You have to be the son of Adama Aise to do it because this mystical performance of the godfather of Serigne Baba Sy corroborates many of the revealing signs of His holiness stemming from His fasting from His coming into the world on the 14th day of the month of Ramadan, or even from His precocious intellectual insight, making the teacher who was supposed to introduce him to the alpha Arabic alphabet dizzy when the boy of barely four years old was giving him a hard time by asking him questions calling him into doubting his intelligence, his, his knowledge. By choosing El Hajj Omar as godfather of, his, of this year's Gamu of Mustafa in Iran, it is the preeminence of the Omarian Silsila, which is reaffirmed. We must be pleased that one of the members of Sayyid Ali Unbar's family could have this brilliant idea, for who knows the kinship which link the Saj of Ngumba to El Haj Omar Fotiu. You can see the memory of Papsar Ngiran. And moreover, his illustrious son, Sering Umarba, whose pain of loss still grieves our hearts, bears the name of the native of Alwar, a homonymy which goes beyond the framework of kinship to be a mystical osmosis, as the two men as the two men were so similar in their attitude. Anyone who has attended Sering Omarba can attest to, this, to his truthfulness. So much so that a wise man from the region once said that anyone who has, who, who, anyone hesitating to pronounce the, true, the truth should only resort to Sering Omarba, who never minces his words. This truthfulness posture was Sheikh Omar's real battle horse. In Risalat, in Risalatul Sawq al-Habib, the one who claimed to be able to rewrite all the books in the world without changing a comma in the event of book burning said, no one can be more ignorant and arrogant than the sinful and criminal people who legalize enslavement of free people by an act of fatwa. To sell slaves to the Europeans or to others is totally prohibited. But despite such prohibition, people who pretend to be knowledgeable, let alone ignorant, are still competing in this hated transaction. Worth, still we do not see anyone condemning it, nor is there anyone from among the ulama or the amir, religious or temporal authorities, trying to put an end to this illegal practice. They act as if it were no longer obligatory upon them to do so. In these vague times, when our brothers in Palestine are persecuted under the distressing gaze of the Ummah, it is appropriate to remember the courage he showed in denouncing the ignominies of his time, such as the slave trade, for example. This is also the place to follow in, the footstep, in, in his footsteps in denunciation. Having barely returned from Som, where his other disciple and successor in jihad, Al-Mujahid Kabir Al-Mami Tafsir Mabajahuba lies, it is opportune for the Malikit Yorf to imbibe the value of Jom, Gor, and Fit which have nourished their work forever inscribed in the marble of the history of our people. Atara, said the griot of Futa, to regret the departure of Seidu's son. It is indeed this departure which was able to remotely guide our action on the path of Sufism. The stream of Islam, which gives meaning to our existence. Long live Sheikh Omar. Eternal gratitude to his work. Thank you for your attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uh, dafa mel ni bu mel rek ñu ne jigéen ñi nañu toogee nii ñi safaane jigéen ñi di góor ñi nañu toogee nee ñu ne wat na xale yi ni. nii ñi safaane xale yi di mag ñi nañu toogee nee ñu ne na kilifa diine yi toogee nii ñan ñoo safaane kilifa diine yi kilifa yéefar ñu ne na kilifa yéefar yi toogee nii waaye place boobu kenn toogu fa ñu ne na kilifa àddina yi toogee nii kilifa àddina yi ñëw toog ñoom gouverneur ñoom préfet ñoom président ñu ne kilifa laaxira toogee nii kenn toogut kon kilifa diine amul safaanam kenn ñemewul taxaw ne may kilifa yéefar kilifa aduna aussi amul safaan kenn ñemewul taxaw naan may kilifa laaxira mu mel ni nag kilifa diine ak kilifa aduna xaw a mel ni ñu def waxtaan mu ne ko man may kilifa diine officiellement waaye officieusement may kilifa laaxira kilifa aduna ne man officiellement may kilifa aduna waaye officieusement may kilifa yever lolou nak mom la Cheikh Omar dugut mom dafa ñëw nek al insanul kamil ñëw incarner le pouvoir spirituel spirituel incarner le pouvoir temporel waaw bu la nexé nga ne mu yar khilafa Seydina Cheikh romu na sax al khilafatul uzma khilafatu rabbaaniya bi suñ borom waxon mam adama inni jaa'ilun fil ardi xalifa moom la Cheikh Omar incarné loolu nag mbokk yi ñaari yoon la ko nit di amee mooy nga ñaq ba am ko wala suñ borom jagleel la ko Cheikh Omar ñëw boole ñaar yépp mu ñaq la mën a ñaq suñ borom jagleel ko la mu ko jagleel yoon bi mu jaar rek la ñuy wax su ko defee comme te temps bi daf ñuy xat ku xam yoon bi nit jaar ba am li mu am di nga mën a wax lan la incarné ak nan la ko doxalee mooy daje bi mu dajee ak sëriñam di cheikh Mouhamadul Ghali fan lañ dajee ñu ngi dajee màkk moo tax jagle bi ko suñ borom jox mooy tarbiyatahu bayna xaramayni sharifayni privilège bi mu am ñu tarbiye ko si diggante màkk ak médina volet environnement ñëw ak millier mu nekk ñaar yu déterminant pour defar doomu aadama yarkat yi xam nañ si dara nit ki la nga bëgg a def si moom environnement ba mu nekk daf koy répondre milieu ba mu nekk daf koy répondre bu loolu amul loo dugal day génnaat loolu moo tax benn waaye dafa ñëw fekk ñu si daara ja mu xool benn xale bu ràññeeku mu ne xale bii su mokkale alxuraan na ngeen ma ko jox boobu wóolu na xam-xamam wóolu na expérience am wóolu na jaar-jaaram te xam na ne xale bi ku yàlla defal la bi xale bi mokalé alcorane mom mo ñëwaat ne xale bi nañ ko fi bàyyi grawul mané ko lu tax mu ne environnement bi environnement bo xamné da ngay julli juróomi yoon ci bés bi jàkk di wosifa suba ngon di hadara di gudd aljuma di jàng alcorane gudd ak beccëk environnement bobu ku fa nek même bu ñu defarul di nga defaru lool nak kenn du ko tëkkaleeg bay nam xaramay ni sharifay ni loolu moo wax ne bi azami zamani wal makani taazimu taati ma al isyaani solon place bi ni mu màggee ak environnement bi jëf ji noonu lay gën a màggee wala bàkkaar bi noonu lay gën a garaawee tur yàlla bi nga rëkk sa biir néeg bokkut ak bi nga rëkk si biir jàkk ji bokkut ak bi nga rëkk si kaaba gi tur yàlla bi nga rëkk sa biir néeg bokkut ak tur bi nga rëkk jamono bi nga nekkee si biir julli di sikar kon privilège bi njëkk bi suñu borom defal Cheikh Omar mooy mu am possibilité ñu tarbiya ko diggante Makka ak Medina. ñaarel privilège moy kawnu murabbihi min ali bayti rasul wa huwa ash-sharif cheikh mouhamadul ghali wa kawnuhu min khasati akabir sayyidina cheikh ndax dañ lay wax ne nga tan serigne bu mat serigne d'abord yashabu shaykhan alif al-masalik yaqihi fi tariqihi al-mahalik في allah المهالك ra'ahu wa yusilu al-abda ila إلى lol mom ken du natable ne Cheikh Mouhamadul Xaari àgg na fa sëriñ bu xam yàlla mën la faa yóbbu danger yi nekk si yoon bi mu xam ko te mën laa épargner kooku kenn nattabloo na ku Seydina Cheikh defar ba nga taxaw taxawaayu xalifaam àgg nga foofu moom Cheikh Omar aussi mu mat taaliba dëgg ndax avant yoonam boobu fekk na mu am xam-xam nekk wëliw jàpp tarixa bi am yeneen ijaaza kon waxuma la mat taali waaye dafa mat waxuma la mat taali waaye dafa matoon sëriñ mu nangu nag tarbiya Cheikh Mouhamadul Ghali kal mayit bayna yadil ghaasil donc sëriñ bu ma sëriñ ak taalibe bu ma taalibe bu ñu tasee foog résultat am waaye Cheikh Mouhamadul Ghali am yeneen ñaari doole mooy doole shérif deretu sallallahu alayhi wasallam di daw seeramam day am jeexit ku bugg xam loolu di nga xam lu tax Seydina Abubakar ñëw ñaan soxna Fatima yonent bi yonent bi joxu ko suite waxul bu bañ de mu Seydina Omar ñëw ñaan ko sallallahu alayhi wasallam joxu ko suite ndax deret shérif boobu mu nek ci Seydina ali mom rek momu non denc soxna Fatima kon deret shérif bobu di dox Cheikh Mouhamadul ghali day am jeexit ci yoon bi mu jaarale Cheikh Omar rawti na nak mu bok ci ponkal yi daroon Cheikh Ahmad Tidiane shérif di khalifam dund ak mom mu yar ko ba mot ko khalifa mu yebal ko ci Cheikh Omar muy ñaari privilège ñettel bi moy anna cheikh na ahmadou Tidiane radiallahu anhu huwa al amiru li Cheikh Mouhamadul ghali أن يبلغ إلى شيخ عمر أنه هو الذي أعطاه كل ما يحتاج إليه من هذه الطريق دفنا كو مم سيدنا شيخ نانا نعم واخ شيخ عمر نكو من ماكو جوخ لي واخو كو نكو جوخ كو لما لا من ما من سيدنا شيخ من ماكو جوخ كون نيغا لي شيخ عمر ام سي تاريخ بي سيدنا شيخ موكو كو جوخ ديريكتومون سي موم لا جوم waye mu obéir si règle tasawuf mooy ki lay tarbiya day dund ak yow nga koy xool mu lay xool waaye wëllu bu jiito génn àdduna mënu laa tarbiya wala bu la tarbiyoo di nga àgg si maqaam bi waaye doo ko mën a incarné naka noonu ndigal li ñu jox muy ijaaza wëllu yu bala kay jox day bokk ak yow jamono mu jox la ko nii shafaatan mun nga gént nag seen naa seex jox la ijaaza valable na de ak nga si maqaam ba de waaye mënoo see may wét loolu moo tax seen naa seex joxul cheikh mu cheikh Omar joxu ko ko directement mu jaarale ko cheikh Mamadul Xaali pour bañ a fëq règle boobu waaye ku soñoon da nga naan cheikh Omar la mu yor Seydina cheikh moo ko ko jox. loolu moo tax cheikh Amadul Xaali bi mu ko koy transmettre daf na ko anta xalifatul laamidal muxaddami xalifa kan du xalifa cheikh Amadul Xaali parce que boobu cheikh Amadul Xaali mi ngi dund kii dund kay mënu koo nekk xalifam kon anta xalifatun min xulafaay cheikh waaw radiyallaahu taala kon cheikh Omar xalifa cheikh la du xalifa cheikh Mamadul Xaali بودن خالد بودن محمد الخالد نيجالي سما ما جوجي كون ديوخ مقدم محمد الخالد مولانو كو انت خليفه لا من المقدم نيتيل بريفيليج بي نيتيل بي موي كون شاهد على تبليغ الاذن هو سيد الوجود وعالم الشهود تجاه روضه الشريف دا فا ام لي نيوخ سيدي دا غاي ديغ كوني ديو كات باكا سيغ بابا كات جوخ نانغام غراب جي موي سيديم بان كو شيخ اجمال دون جوخ نانغام اي دومام نيوي سيديم donc seede day valoriser mbir cheikh mahamadoul xaali ba muy jox yóbbandi cheikh seydina cheikh ba mu ko jox cheikh omar sallallahu alayhi wa sallam mooy seede bi waaw moo tax juróomeelu privilège yi mu ne ko saa yu ma julee tàkkusaan dinaa am lu ma wax si si raw di seydina mouhamed di la ñaanal yow cheikh omar sëriñam moo ko wax loolu loolu moo tax xilaafa ga suñ borom joxoon maam aadama xilaafa googu moom la cheikh omar doon muy xilaafatu rabbaani al xilaafatul uzma moo tax mu incarné ñaar yépp si wàllu diine leer na waaye si wàllu àdduna nag mu am ndigal loolu nag ñaar moo la koy jox mooy si urne yi wala si armée bi te wëlu balaa ngay am jihaad foog nga am ndigalu suñu borom moom ndigal li yéen Seydina Cheikh jox na ko ko yéen saa salaam jox ko ko suñu borom jox ko ko directement mu soog a dem jihaad kon ku ñeme woon sax danga daan naan xilaafa Cheikh Omar moo complété xilaafa Seydina Cheikh ku ñemoon loolu ngay wax ndax seydina cheikh mo don sallallahu alayhi wasallam ci si zahir ak ci batin seydina alayhi wasallam jihad te seydina cheikh jihaatul jihad cheikh omar bobu nak mo complété khilafa seydina cheikh jihad mo lay may tawhid bi ñuy woote muy tawhidul hakimiyya nga mun ko doxal da dafa am tawhidul rububiyya am tawhidul uluhiyya am tawhidul asma wa sifa waye mu am tawhidul hakimiyya moy wétal yàlla ci say atte لولو كو دخلو البوفوار تامبرال مونوكو دخل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لولو فوك غير بوفوار تامبرال مونو دخل ات سيني بوروم سو بوبا كين دو واخ كليفه دينه كليفه ادنا داني واخ كليفه دينه نييب توب سي السلام عليكم ورحمه الله بارك الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم تبرأت بحولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ok السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alors pour un texte de sept voire bon sept pages si je devais résumer ça en dix minutes vraiment c'est très petit mais je vais prendre les grandes lignes seulement compte tenu du temps Alors, le rôle de Cheikh Al-Hajj Omar dans la résistance à la colonisation. Né en 1797, selon certains à Loire, aux environs de Podor, dans le Fouta Toro, en pays tout couleur, El Omar était un grand érudit, doublé d'un homme d'action hors pair. S'inscrivant en droite ligne dans la mouvance des rénovateurs de la foi, El Omar avait pour objectif principal la restauration de l'islam dans sa pureté originelle mais savait-il qu'une telle tâche aussi redoutable ne saurait se réaliser uniquement par le savoir, al-ilm Celle-ci doit être assortie d'une action, al-amal. Aussi avait-il conscience qu'il vivait dans un pays où la pratique de l'islam n'était pas conforme à l'orthodoxie, avec un environnement très hostile causé par l'administration coloniale. Il s'est ajouté la vulnérabilité euh, de la couche sociale la plus démunie dû à un régime discriminatoire et sujet à de lourdes exactions, comme l'a dit mon maître et professeur El Rawane en disant qu'au moment où Eladji Oumar arrivait au Fouta à la fin de 1846, il n'y trouva qu'un peuple frustré. Le djihad était alors pour Eladji Oumar inévitable. Il ne serait donc guère étonnant qu'Eladji Oumar ait été à la fois un homme de pensée et d'action. Pour lui, ces deux éléments étaient indissociables, comme l'attestent ses écrits qui dénonce tout à la fois le colonialisme et toute malversation ou humiliation. El là, euh, vu, la dimension incommensurable de l'islam, El Oumar avait toujours cru et défendu que l'islam doit être considéré comme une ceinture de sécurité qui peut résister à toutes sortes de pressions ou d'oppressions. Mais toujours, il faut comprendre qu'il y a deux El Omar. El Oumar le savant et El Oumar le combattant. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est El Omar, le combattant. Alors, sans l'ombre d'aucun doute, El Omar avait toujours rêvé de fonder une théocratie militaire qui allait du Bambouk au Sahel et du fleuve Sénégal au delta du Niger. Or, étant donné qu'il s'était résolument engagé à remplir une telle mission, à savoir éradiquer le paganisme et faire asseoir le monothéisme, El Omar, là c'est une question, pouvait-il s'empêcher de faire le djihad Vivant dans un pays, comme je l'ai dit, Hostile à l'islam, El Omar sentit la nécessité de recourir aux armes pour établir un État islamique en Afrique occidentale. Pour avoir été un croyant dévoué et attaché intrinsèquement aux préceptes de l'islam, nombreux furent des convertis qui se laissèrent adhérer à la confrérie Tijaniya en s'intégrant bien sûr aux troupes du Moudjahid, la grande figure religieuse qu'ils voyaient comme un refuge, voire comme échappatoire du colonialisme infect et exécrable. Christian Coulon a écrit que la tidiane de Cheikh Omar fut un véritable refuse où vinrent se fixer ceux qui voulaient fuir le pouvoir du colonialisme et ses chefs indigènes. Alors, donc, je vais essayer de me résumer parce que je voudrais aborder le djihad omarien euh, en essayant d'esquisser, par exemple, les étapes à travers lesquelles il a livré son djihad. Je vais seulement énumérer la première bataille qui consiste la bataille de de Tamba. Alors pourquoi Tamba là Omar Utal, après son pèlerinage à la Mecque, il fit une grande tournée. Après une absence de 20 ans, il entreprit sa première tournée en Sénégambie, particulièrement dans son photo natal. L'objectif principal de cette tournée, nous dit l'historien Boubacar Bari, était de recruter des disciples pour assurer le triomphe de l'islam par le djihad. Alors il est passé par le Ségou. Là, il trouva le roi Tchefolo qui l'emprisonna, puis le relâcha avant de s'incliner devant lui pour devenir son disciple. Le roi de Tamba qui s'appelait Yembassar. Je vais rappeler que le premier djihad livré par Elhaj Omar est la bataille de Tamba. Alors, Saho était le, le chef de Tamba. Alors, quand la quand il s'est rencontré que Elhaj Omar Foutuital avait une très grande armée, il a, envoyé une, mission pour le désarmer. En lui demandant ses fusils, sa fille aînée et autant de choses. Elhaj Omar Foutuital ne pouvait pas accepter ça. Yemba qu'est-ce qu'il a fait Il est allé attaquer Elhaj Omar Foutuital. Alors, sous cet angle, les dañuy qui qui ont le bi kan moo ont ci ñi entre Yemba Sakho et El Omar El Omar Foutiyou après avoir défait après avoir combattu Yemba alors il est parti alors ça c'est le Khasso le Karta euh, maintenant ce qui m'intéresse excusez-moi c'est deux éléments essentiels il s'agit de Ségou et de Massina surtout la bataille du Massina il y a pas mal d'historiens voire de grands savants qui aujourd'hui croient que El Omar Foutiyou a tué les peuples de Massina qui étaient des musulmans comme lui et cela nécessite une étude approfondie pour ne pas porter préjudice à El Moufoudal. Ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement à la bataille de Ségou Parce que la bataille de Ségou et la bataille de Massina sont intimement liées. Et là, après son pèlerinage à la Mecque, il est passé à Ségou. Là, il a été mis au fer, il a été emprisonné par le roi Tchefolo. Alors, convaincu par sa sœur qui s'appelait Badiou, qui lui demanda de le laisser continuer son chemin, il le libéra. Maintenant, très déconcerté par ce revirement, Kefolo devait donner des arguments à son état-major. Sinon, sinon, il aurait perdu sa réputation. À la limite, on le taxerait de couardise. S'étant finalement converti à l'islam, mais Kefolo fut dénoncé par sa femme et fut évincé. Il devait être remplacé par Torokoro Mari, qui lui aussi, pour s'être converti à l'islam devant Eladj Omar il a été égorgé. Ça, c'est grave. Il a été égorgé l'horreur de cet acte ignoble et barbare mit El Omar dans un état séditieux. À la mort de Torokoro Mari, donc Ajoumar Omar a perdu deux de ses lieutenants. Pourquoi Pour s'être converti à l'islam uniquement. Donc à la suite de cette mort-là, alors il a, il a été remplacé par quelqu'un qui s'appelle Bina Ali. D'ailleurs, Bina Ali lui-même, il s'est proposé pour être le calife de Ségou. Maintenant, les Bambars exigèrent, pour que tu deviennes le calife de Ségou, il faut que tu sois un païen parce qu'un musulman ne nous dirige pas. Lui aussi, finalement, il a, accepté. Maintenant, l'assassinat odieux, l'assassinat odieux perpétré contre son disciple Torokoro Mari le galvanisa dans la réalisation de son projet longtemps mûri. Ce qui le poussa, El Ajumar, à exiger d'Ardar la conversion d'Ali Gara, qui a été le roi de, de Ségou fraîchement intronisé. El Hadj Omar après avoir après euh, bon après un séjour de 5 mois à Niamina El Hadj Omar fit savoir à ses troupes donc je ne peux pas attaquer Ségou tant qu'il y a Waitala devant moi donc il faut d'abord que El Omar règle le problème de Waitala avant de s'attaquer à à Ségou Waitala a été une grande base de résistance des Bambara cette bataille de Waitala fut une bataille rude et épique qui a failli compromettre la piste de Ségou pour l'avoir bien préparée militairement comme financièrement l'armée omarienne mit en déroute mais difficilement leurs adversaires, ce fut en septembre 1860. Ouattara fut prise. Maintenant, El pouvait avoir en ligne de mire le, euh, le Ségou. Maintenant, El a conquis le Ségou. Il ne lui reste que le Massina. El sortit avec son armée, suivant les traces de le roi de Ségou, parce qu'il a pris la fuite. Ce dernier, pour aller se réfugier au roi de Massina. Maintenant, le roi de Massina lui a accordé l'hospitalité. Donc, il l'a hébergé. Tel est exactement dit El dans le démêlé qui m'oppose à Ahmadou, qui fut le roi du Massina. Alors, l'expédition qu'il entreprendra, à savoir la conquête du calife de Hamdallah au Massina, comme l'a dit Robinson, ne faisait nullement partie de ses projets initiaux. Or, étant donné que la Jumar avait décidé de combattre le paganisme, il devait non seulement prouver que le chef du Massina était bel et bien un païen, il se consacra à rédiger le Bayan Mawakan pour convaincre les savants que le roi du Massina est bel et bien un païen. Pourquoi Parce qu'il a accepté de s'allier avec le roi d'Ali, qui fut un païen. Alors, pourquoi El a dit euh, que le roi, Ali était un païen Après avoir été hébergé par le roi du Massina, il a écrit une note en lui disant Non, laissez-le tranquillement faire sa religion parce qu'il n'est pas païen, il est croyant. Il s'est converti à l'islam sous ma direction. El n'est pas d'accord. El a envoyé un de ses fils en lui disant Amène-moi les idoles qu'adorait Ali, le roi de Ségou. Donc je vais terminer l'étape du Massina et après je vais, je vais conclure. Alors j'avais dit que le, roi de Ségou, après avoir pris la fuite, il est allé se réfugier chez le roi du Massina qui l'accepta dans, bon, dans le giron, disons. Alors maintenant, chez le Hayoumar, pour prouver que le roi du Massina est devenu un païen, il a écrit le Bayan Mawaka'an. Le Bayan Mawaka'an en 1861 était destiné à justifier l'attaque par El au royaume du Massina, alors gouverné par Ahmadou Ahmadou, d'autres l'appellent Ahmadou III, petit-fils de Cheikh Ahmadou, fondateur de l'imam de dans le delta intérieur du Niger, actuellement au Mali. Alors, se présentant en réformateur soucieux de restaurer l'islam dans sa période originale, on l'avait dit, El Omar légitime son action par l'argument selon lequel Ahmadou III, le roi du Massina en s'alliant avec les païens, le roi Bambara de Ségou, s'est assimilé à ces païens-là et doit être traité comme tel. Le refus de livrer le roi de Ségou à El Omar mit Hamdallahi dans une situation embarrassante. Si le roi du Massina avait accepté de livrer à El Ajoumar le roi de Ségou, il n'y aurait pas peut-être la guerre contre le Massina. Pour lever tout équivoque sur la vraie identité religieuse du roi de Ségou, Bambara, El a envoyé à son fils une lettre lui demandant de lui amener les idoles qu'adorait Ali, roi de Ségou déchu, pour prouver la mécréance de ce dernier au Massinanké qui croyait à sa conversation ayant rassemblé les Foutanké et les masinanké, il a fit venir le roi de Ségou, alors qu'il a été arrêté depuis la bataille de Chayawal, Les idoles sont exposées sur la place publique. On demanda au roi de Ségou qui étaient ces idoles. Il répondit Ce sont mes dieux. Les idoles, il dit Ce sont mes dieux. Selon David Robinson, le roi de Ségou, le roi Ali, et aller jusqu'à citer les noms des idoles pour qu'on les connu, Le différenciateur leur dit et eh, frappez-les, brisez-les, afin que vous éleviez des mosquées dans le Ségou tout entier. Beaucoup de massinanké firent défection et rejoignirent la qui au fil du temps, réussira à construire des mosquées dans les contrées de Ségou. Là, une question se poserait lancinement dans l'esprit de la Foutuital. Si la conversion du roi de Ségou était avéré, qu'est-ce qui le pousserait alors à garder par devers lui les idoles D'après Amadou Ampateba, lui aussi, il dit que le roi de Ségou ne priait même pas, il a gardé le panthéon Bambara. Il ne s'était jamais converti à l'islam, renchérit David Robinson. Donc Elage Omar a raison sur toute la ligne. La guerre contre Massena maintenant était imminente. Cheikh Moussa Kamara, un grand savant de la, de la décrit la situation. Il dit les deux camps se sont vaillamment battus, les coups d'épée s'intensifièrent, le grondement des cris des combattants a failli remuer les montagnes. Ce fut un jour épouvantable. La poussière envahit le ciel, le feu se déclara de toutes parts, le soleil darda ses rayons, ce qui provoqua un effroi sans précédent chez les autochtones. Le roi Massignan essaya vainement de contenir le flot des assaillants. Blessé, il se fut évacué par, par ses gardes-corps. Ainsi, se battant envers et contre tout, de ne pas tomber entre les mains de l'âge Oumar, le désormais roi du Masséna, dut se voiler la face et dit qu'il préférait être tué tout de suite que d'être conduit vers l'âge Oumar. Finalement, il fut arrêté, exécuté et enterré dans la région de Mopti au Mali. Maintenant, je vais conclure et sauter la partie du désastre. Le génie de l'âge Omar Foutu est à multiples facettes. Jamais combattant n'a été aussi vaillant et courageux que le marabout couleur il était un homme stoïque, capable de résister à toute épreuve. Jamais il n'a tourné bride devant l'ennemi, mais il l'a toujours attendu de pied ferme, gardant toujours une bonne contenance malgré les chemins de croix dressés en son encontre. Combien de fois n'a-t-il pas semé la panique dans les rangs des envahisseurs Combien de fois n'a-t-il pas de de miner les barrières du paganisme pour asseoir et purifier l'islam N'eût été la grande résistance de l'âge Omar Foutuital contre l'intrusion coloniale la domination despotique des chefs traditionnels sur les moyens nantis, le paganisme exécrant, l'idolâtrie abominable, l'islam en Afrique en général et au Sénégal en particulier risquerait fort bien d'emboîter le pas aux tendances sectaires et sordides. En définitive, si sa vaste érudition livresque qui a atteint les plus hauts niveaux continue à émouvoir plus d'un, elle n'était rien comparée à sa connaissance spirituelle et luminescente dont la source intarissable est le maître Ahmad Tijani, que je l'agrée. De même, si ces prodiges reconnus de tous furent nombreux, aucun, à notre avis, n'a été plus prodigieux que la rectitude et la rigueur morale inspirée de l'exemplarité du prophète paix et salut sur lui, qui continue, qui constituait entre autres le propre de sa doctrine, comme l'a fait remarquer Cheikh Soukayrij. Le regretté Amar nous dit que plusieurs années durant, il galvanisa toutes les énergies en vue de résister à tout envahisseur, qu'il fût colonisateur ou bien souverain mort. Aussi, aucune dialectique, quelle que soit sa forme stylistique, quels que soient les motifs inavoués qui l'inspirent, ne saurait rabaisser la belle figure de celui qui incarne dès l'âge de 25 ans la résistance nationale. Le professeur Ibader Cham nous raconte les stratégies et les blancs, les stratégies excusez-moi, que les Blancs voulaient adopter pour contrecarrer Elagi Omar Foutuital et le courage héroïque de ce dernier, ainsi que la hauteur de sa vision pour faire face, pour leur faire face. Il voulait empêcher la domination du Sénégal. Son ennemi principal à cette époque était le système colonial. Federbe était l'homme des milliers d'affaires. Il était également l'homme du parti colonial. Ils l'ont nommé gouverneur du Sénégal en 1854 pour qu'il puisse reprendre la situation en main et pour conquérir les pays. Conquérir le Sénégal, mais aussi ouvrir la voie à travers le fleuve Sénégal vers le pays qu'on appelle le Soudan. C'était cela son objectif. El Omar l'a senti. Il a été l'un des premiers, sinon le premier, à avoir compris le système colonial. Et Bader Cham dit cela n'est écrit dans aucun ouvrage, mais c'est une vérité fondamentale. Le premier discours anticolonial a été prononcé par El Omar Fouti أوحي إليك بما في طي من صور حتى تمثل في أعمالك الصور رسالة من خيار ما له شبه وسيرة من رجال دونها سير إن غاب في الغار فالتاريخ يظهره عبر الزمان لمن في فعله نظر يا صاحب الوقت يا منصور يا وزر يا شيخنا يا ولي الله يا عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baarakallah génne ko waaye ñu wax rek ñu ngi wéyal euh, symposium bi di wax ne bu nu gisee intervention yi fi jot a jàll kon sunu maam Cheikh Omar Fouti taxawu na diine ji sunu maam Cheikh Omar Fouti taxawu na penc mi maanaam réew mi waaye aussi taxawu na tariixa bi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 te dëkk ci réew mi seen kilifa mooy ka doon eh, njabootu Cheikh El Hadj Umar al Fuuti radiyallahu taala anhu kon Seydi Taal ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di ziyaara soppe yi nga àndal yëpp tabaarakallahu di ziyaara sunu kilifa yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo fi nekkandoo woon ci tàmbali gi ñu ngi leen di nuyu ngir gàttal waxtu wi rek ñu yemale nuyoo bi foofu di nuyu itam lu munta ñàkk sunu wóolëre sëriñ Moustapha Ngiraan e, di wax ne li mu def nii loolu rekk moo ñu saf ñun ndax réew mi lépp luñ fi waxtaanee ak kuñ fi war a fésal dafa war am ñu ci gën a yay te ki gën a yay ñu xamle ko te ñépp xam ko te ñépp itam jàpp ne amuñu sëriñ bu bu ko féete kaw ci réew mii ñu nekk mooy sunu maam sunu sëriñ Cheikh Alxaaji Omar ibn Saïdin fuuti radiallahu taala anhu réew mi nag niñ ko tëggee moo jaxasoo jaxasoo goog lépp dañ ko jàppe ay kër ay kër am na waaye kër yëpp mooy kër Cheikh mar Omar kër Cheikh Alxaaji mooy kër baay ñëpp fa lañ daje moo tax buñ koy waxtaanee wala ñu sampal ko wala ñu koy fësal day fekk ne loolu mooy li war a ne li war a ne nag comme léegi li war a ne néewal néewaluñ ko ku newal li war a ne rek dañ lay sant ci loolu ñu lay sant di la gërëm bu baax sëñ Moustapha di nuyu mbooloo mi teew yëpp di nuyu ñi ma jiitu ci waxtaan wi comme nag maa fi gën a nekk xale gën fee ñàkk xam-xam man maa war a gën a néewal sama kàddu ngir borom xam-xam yi mën a jël temps bu doy li ñu cëral pour ñu waxee ko rek mooy benn facette ci Cheikh Umar Fuuti radiyallahu taala anhu ñu nag gàttal gi sax dafa baax ci ñun ndax Cheikh Umar dafa am fu mu toll ci sunu xol bu sori boo xam ne di bareel wax ji sax mën na indi beneen complication ci mbir yi facette bi ñuy waxtaanee ci moom mooy wàllu xam-xam waaye xam-xam moom def ci liggéey liggéey yu wuute bu dee ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu beneen affaire la kuñ fiy wax ci sa tagg ci yonent bi rek dafa fekk ne dañu xamul ko Cheikh Alaaji Umar ñu itam safinatu saada waaye loolu benn facette la rek ca wàllu xam-xam ba am na yeneen yu mu def ci yeneen téere ci yeneen wàllu uh, xam-xam loo xam ne jëmuñu ca tey ñun li ñuy concentré wu rek mooy téere yi nga xam ne da ko def xisiisan ngir défendre tariqa bi te loolu nag moom daf ci jiitu ndax Saalaaj Umar radiyallahu taala anhu boo xoolee époque bi mu doon dund bu ko jiitu jawaahirul maani lay tudd moo tax moom buy wax Cheikh na Ahmad Tidiane nee na du wax ci téere sàngam la nekk ndax amul beneen téere bu waxam bu wax Cheikh di nekk lu dul ak jaamiu moom kon ca ñu jiitu la bokk kon yoonu défendre tariqa bi moom moo ko xàll xàll ko nag ci xam-xam bu yaatu képp koo xam ne miin nga lii di rimaaxu xisb rahim miin itam suyuufu saïd ñaari téere yooyu dangay gis ne lépp lu waay di tontuwaat faw foofu nga koy jëlewaat ndax dafa ndar kepp wax ji maanaam lépp lum lay indil ciy lay bu doon benn layay doy faw mu jox la fukki aaya te benn doyoon na fukki xadis te fekk benn doyoon na fukk yuy wéral ijmaau borom xam-xam yi te fekk benn doyoon na moom noonu lay doxalee moo tax téereem mën nga koy liir di dem lu sori ci benn wax loolu nag dafa bëgg ndar képp wax ji ba moom bu fekkee keneen waxaatul di tontul tarixa bi tontu ba mu tontu woon rek day doy sëkk radiyallahu taala anhu daf ñu jàngal nag ca bunt bu jëkk ba ci rimaax ne ñu tontul nit yàlla yi même bu dul tarixa bi tontul nit yàlla yi wareef la ci képp ko xam wareef la ci képp ku xam te li nga xam nga dund ko aalimin mutadayin loolu dafa am solo dafa am koo xam ne day défendre waaye li muy défendre moom dund ko moom nag daf ko mate sëkk taxalluqan ngir jikkowoo ko mate ko sëkk ci xam-xam boo demee ci buntu fanweer wala juróom euh, ñaar fukk ak juróom-ñeent daf cey wax ni mu doone khalifa Cheikh Ahmad Tidiane jital ni mu doone khalifa yonent bi mu ne xalifa yonent bi nak ku koy fay fek da fay peg ci sharia bi pegin wo xamne day meuna taxawu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni yonent bi don doxale lol nak ni mu peegee sharia pegé ko haqiqa ci anam bo xamne ne man munuma ko làq dafa fess lu mel nonu ku mel nonu mo meuna taxawal tariqa bi moko meuna taxawu itam da ko dund ba mat sëkk doon ci kilifa du caagéene kenn moo ko ci def kilifa waaye am na ci shawaahid yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ko góor ga waxee ne ko loo xam ci Cheikh El mar mu ne ko minni badaa wa ilayya yantahi wala badaa ala yadi wa alayha tantahi maanaam ci sama loxo lay tàmbalee ci sama loxo lay jeexee maanaam tër bi yëpp Cheikh El Hadj ak lépp lu muy doxal ci sama loxo la nekk taxawaay boobu mu am nag motax mu bind ñaari téré yi di téré yu am solo rimahu xisbi rahim ak téré bi di suyufu saïd gannaaw ba nga xamé ni mu donno yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xam-xam comme sharia bi kenn mënu ko jam fekk muy dund mom waye itam ni mu donnoo Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu loolu firnde gi gëna reey moy waxu sayyidi muhammad al Ghali anta khalifatun la min al muqaddamin ak wax jamu wax mom Cheikh Alaaji Umar ne jaalani khalifatan min khulafa'i shaykhi radiyallahu taala anhu bi muy défendre wàllu tariqa bi du caagee ne kenn ko attaqué mu jog waaye dafa wax waxin woo xam ne nit muntu la attaqué ti te sa tontu defu defaru ko ba noppi noonu la tëggee téere bi nga xam ne bépp masala moo xam ne dañ koy waxtaane di ca jam tariqa bi Cheikh El Hadj Omar lu jiitu kooka di jam indi na réponse bi mu tege yow boo jamee ba noppi day fekk tontu woon na la laata mu fi jóge radiyallahu taala anhu ci ay masala yu baree bari nag jangal ñu itam kontar kañ lañ koy def manam bo bëggee wax né tariqa bi jubluuma wala neexuma soko ko bëggee diingat yow ci yan base nga ko mëna a bu firé base nga ko mëna a nga xamné ne kenn amul droit diingat ndax pour nga diingat ko faaw nga ihata sharia bi te sharia bi kat moy 360 buntu yo xamné lay jóge ci yalla fofu lay jaar ku ta pek nak lax dar yu bu mat yow sa naxu yow kon xaraam na ngay wax ci tariqa bi dara loolu Cheikh Alaaji Umar moo ko jàngale ak itam nit bu bëggee contre ci yan yoon lay jaar pour contre gi mën a nekk loo xam ne jam fu ñu mën a jam lay doon yooyu yëpp nag daf ko leeral ba pop ndar képp ko ci tariqa bi kenn mënul jam tariqa bi ci benn masala masala nag bi nga xam ne moo gën a siiw ci masala yi te ci la tariqa bi reposé wu mooy wàllu gis yonent bi yaqadatan daa a am ndax dañuy wax lool moy mooy ummul masaili masala yi jame tariqa bi yep boko sété day delu ci gis yonenti bi ndax bu gis yonenti bi daano rek tariqa mo fudul nekati fofa nak daf ci leral lu bare bare bare bare ci walu xam-xam nga xam ñëwaat rek la lañuy la def moy rootaat ci mbalka mom Cheikh Alaaji mar radiyallahu taala anhu eh, walu sikar leral nako bu utal ko buntu mu ne damay wax ci buntu bi sikkar rek lay waxtane waye biral ko nak ak di dajalo lol benen buntu la koy wutal lu nek mu tas ko waxtane ko bam leer nañ ci xam-xam lo ci bëgg ci ay lay rek bo ding ko fa fekk mu waxé ko nii ci rimah waye dem ci suyufu sa'id itam teggat ko fa waxé ko neneen ak yeneeni lay sik sik dafa doy seuk seuk seuk karange ci tariqa bi mu ne na ci lima doon cheikh ahmad tidiane radiyallahu taala anhu mooy dama nekk ku taxaw ngir aar tariqaam bi ndax Cheikh Alaaji Umar la mais du xalifa yi ñu xam moom xalifatul xulafaa la ñi Cheikh Ahmad Tijaan mayoon xilaafa yooyu di wàcc ci jëmm la reposé wu mooy Cheikh Alaaji Umar radiyallahu taala anhu la woon ca Cheikh Ahmad Tijaan moom moo ko gàddu dox ak moom ku am moo lay jox fii ci réew mi ak réew yu ko wër yépp moo tax mooy sëriñu tariqa bi fii amuñu ñun ci tariqa bi fii ku ëpp si alaaji ma koo gis rek taalibeem lay doon ca suufam la ne loolu nag dafa lii sëñ Moussa def dafa nekk loo xam ne dafay jëmmalaat loolu xam nga nit ñi ci parparlo lañ nekk dangay wax rek ne maam alin mooy sama maam ca maam Aline rek ngay wax yow wala sëñ Abbas ay sama maam man sëñ Abbas mooy sama sëriñ ca foofa rek lay wax léegi nag ñu bàyyi affaire mu nekk ay kër te affaire bi demewul noonu benn kilifa moo taxaw ci réew mi mooy Cheikh El njabootam mooy réew mi yëpp ñi fiy tijaan yàlla yàlla defal ñëpp jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah